warahmatullah man la Adra Fall doomu Aysatu Njaay ak Mahmoud Fall te maani sugu meññ meññi leen tey dañ ñoo jox ëtt kër maam mu mel na tey jii biñ ko nasee ban dajee nas koog léegi bii mooy première génn boo xam ne dañ koo génn jox ko waa kër maani sugu ñun nag ñu yëg ak cant goo xam ne bi njëkk mooy dañ ko amel président Mourdia ci taxawaay bu mu am ci biir ci pas-pas gu dëgg gu mu am ci nu biir ndax mel na ne kat lii sababu lii dama koy jël ci tàmbali ga sababu lii mooy sunu mag ñu baax ñi di ma ku mel ne mami ñaasa mii ak mbarka bu sama tante ak mbarka bu sama tante Fat Thiam ak marem dama ju Marème euh, si bu sama Fat Thiam ak Marème Ndiaye kérok ban dajé ci ban dajé ci dëj bu fële Médina kérok lañu jekki-jekki wut seenub kayé di recenser lu tur yi ñu woma ma ma ñëw ñu ne ma ñun kat dañoo jàppoon bëgg dal famille bi dajé dajal nañ tour yi dajal nañ numéro téléphone yi dañoo bëggoon tek ko so loxo ñu sét nan lañ mëna fexé ba dajé may leen def ngeen lu rafet lo xamné ñun ñi la waroon waye nak yeen la war parce que mag yéen a fekkee démb fekkee tey yàlla leen fi yàlla gën a bàyyi ma ne leen lool lii kat ba ngeen ci noppee Modou jaa ngi nee taxaw nañ yëkkati kaye bi dem ba ca moom jox ko te bàyyi ko te xam ne moom lu ci xalaat lu ci jàpp dana ci waxtaan ak ñun tey yàlla dogal keroog bañ ko defee ñoom ñii ba tey jii Modou xaaru ci kenn def nañ fi conférence dem nañ fi Mauritanie li gën ne fa ba génnee fi ñu ñu ay badji ñoom ay ambition yu bëree baree bëri bëri ci biir ëttu kër maam yoo xam ne dañ koo def defuñu ko ngir ut defuñu ko ngir ut defuñu ko ngir dajal alal dañ koo def def ngir suude ak mbokk ndax mbokk gi yaatu na te xamante woon waaye mag ñi day seen ànd moom ñëpp lépp rafet seen ànd rafet gu mu rafet ak dëgg gu mu dëggu tàmbalee ko suñuy maam wala ba suñuy ndey moo jur tey ñu dem ba yëg si fii ñoom ñii di suñuy mag di taawu kër yi mën a xalaat xalaat bii ñu jug topp seen ginnaaw kon Modou ñu ngi lay sant di la gërëm sa taxawaay ci suñu biir. boobaak léegi yaay xalaat yaay def yaay dindi li ngay def di ko dindi lépp rafet na sant nan la ci gërëm nan la ci di ñaan yàlla nii ñu ko tàmbalee ñu yeggale ñu yeggalee ko te kenn bañ koo wutee ñi fi nekk day mag yàlla bàyyi leen fi bi ci topp nag mooy. ñi fi daje bu ñu xoolee tey sama nijaay Ibra Saalum mi ngi fi mooy taawam Ndeye Maane a ngi fi mooy taawam bu jigéen waa kër euh, euh, muy waa kër Maani Sugu mbaar kaaca mag vie Ndiaye ngi nii toog mooy sunu mag moo waroon wax moo ma jox kàddu gi ca topp di di sama yaay Aysatu Ndiaye mare mai mooy taawam mi ngi fi ak rakkam kata top di di sal, sama nijaay jai salum mahmen jai nii tok aksi di ci fi fi sunu mam bim mu koki ci ci ay netali fi la fi la am keur muy keur kergi keur gi lu fi lu fi njabotuk mani ni sugu am rek keur gi keur gi la bawo keur gi ko meññi sama jay salum mo fi nek yalla nako fi yalla saxal sama jay ibrahim Saalum mi ma tudd nii ak ak ak ak ak uh, nday nday maane kii mooy taaw bu góor kii di taaw bu jigéen vie mi ngi may wax awa waaye day mel ne su ma tuddee sama nijaay Saalum tudd ku mel ne Mbarka tudd ku mel ni Ahmed doy na sëkk bu loolu weesoo nag ni ma ko waxee sànq muy sama tante awa ngi nii toog jóge ba Mauritanie may sàkk ñun ñëpp ñu ñaanal ko li ko tax a jug mu ñëw fii bu fu jógee yàlla na yàlla dogal mu tàqali ko loolu jëlee fi ak wér moo nekk mu Mauritanie moom mel na ne ba mu fiy jógee yàgg na waaye mooy reenu ma maani sugu gi nekk Mauritanie njabootam gi ñëpp juddoo fa tubar fa kàlla ëtt kër maam dafa defar lu rafet dafa def lu bari ñun day xawma waaye ñun waa kër Mané Sougou Modou ñu ngi lay sant bu baax di la doole sant ndax bi ngeen xalaatee lii ba jàpp ko ñu dem ban fa yeggee foo fekk nañ fa lu foo ko sunu njort Rama mi ngi fi teew du mag Xadi mooy mag ak Xuseen waaye Rama ñëw na ànd ak rakkam Zahra andak domam di setu Mané sugu juga Mauritanie kon lalu moy ëtt kër mam bi nga xam li faré ci Mané sugu bu loolu wéso nak ñu ngi ñu ngi sant bu baax sama tante Fatou Diop euh, Seynabou job tante gi may wax nak dama ko wax ci turu Mbarka mi mag ak Ibra Ndiaye ak awa mi ci gën a tuuti ci seen tur laa koy wax di ko waxee nag ci turu Marème ba ci gën a ci gën a tuuti ci famille bi ne sant naan Seynu bu sant nan la bu baax gërëm nañ la bu ñu xamoon loo xam ne buñ la ko defalee àddina sépp dana xam ne ne bég nañ sa jëmm ji Dan ko wuti ñëw defal lako lool nak mi ngi suñu kanam waye xamna ni bi ci kaw moy la jam ak lo am ak lu mu reey reey reey Wer ak jam du ko upp te ñu la koy ñaanal ndax mag mu melne yow bu bari won ci rew mi jam rek fi am taxaw nga ñu ñun nga ñu ku fekke kérok biñuy dem Mauritanie wax dëgg yàlla ba nga fa nekkee mett na lool ak mbokk jaral la ko mett na lool aas xam na loolu moo jam yi xam na loolu xale ya fa nekkoon ñu fekk leen fa muy jigéen ñi xam nañ loolu sunu mag yan fa fekk xam nañ loolu xam nañ ne ku loo xool xam ne mënuloo ko waaye ak bokk dala koo jaral jëf jooju nag li ci sunu borom def ak yiw yàlla na ko yokk ci say fan ndax kat gudd fan neex na lool waaye bu àndeek wér da koo dàq yàlla na ko suñu moom defal teraanga yii nga nga fi indi du tay nga ko def keroog ba Moodu njëkkee woote nii nga ko defaree mu rafet lool ñu sant la ci gërëm la ci ñu ñu yegg siwaat tey nga defee ko nii nga ko defee yàlla na ko ak bokk fay ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ndax lii kat bu doxee ba yegg si fii yéen ñii nag sama tànt Awa ak sama tante Adama ak sama tànt Kiné yéen la de yéen la ñuy def lu ñu xewle seen leen ñun lu ñu xewle mooy waa kër ay satu Njaay mii di Njaaya lu ñu xewle ak fu ñu ko xewlee bu ngeen waree fanaan da ngeen fanaan da ngeen bu ngeen waree yenn da ngeen war a ngeen yendu bu ngeen waree jël seen alal def ci da ko ci def bari na tey ci famille bi ñun fi miinanteel xàmmee leen yéen yéen a tax ñu xàmmee leen Binta sekk ñëw na fi ki démb bu sama tante Safat Diop ñebe ànd ak mag ji aminta naam wax fi wax ci rafet ndax ci lii ñu nekk muy seen examen yi ñu nekk yëkkati fukk junni bàyyi fi wax wax yi démb mooy ni sunu waajur yi àndee woon sama tante Fatou Diop bi may xale dama yaakaaroon ne mook sama ñoom yaay ñu ñoo bokk ndey ak ndax daawul jug ci kër ga boobu ma nga mars seng di sant bu baax sama tante Marème faati xam nañ ne wër wér rek ku téye waaye bu dul woon loolu dana fi teg tànkam ndax lu ko yitteel la ndax da ko yàgg def kon góor gi ñu ngi lay sant bu baax yaag sa mag mbarka di la ko yóbbanti sama tànta tey sàkk ñu ñaanal leen yàlla bàyyi leen fi yàlla yokk wéram yokk kattanam bàyyi ko njabootam ba ca kanam a kanam a kanam ñu ngi sant bu baax di gërëm vie a ah, tonto alaaji sama xarit sama nijaay sama xarit waaw moom sama nijaay sama xarit moom bariwul lu may xewle te du jug moom ku ne ku ne mën na laa tànkam ba mu des man man lu ma xewle mu ñëw lu ma xewle rek bu ma ko yëgalee mu ñëw bu ma ko yëgal bu ko yëgee yëngu kon nijaay ñu ngi jégalu baax ndax ci yow mii lañ war a njëkkee waaw ndax yaay kilifa gi waaye xel day fatt te lu nii nii nii lii ma dal loolu nga bëgg ndax bëggoo kenn di la tudd yàlla na fi yàlla bàyyi yàlla yokk sa wér yok sa kàttan bàyyi sa jarba di la waajal di la yóbbu màkk ngeen ñaanal ñu bu baax mom kat da sama yaay mi daana ma ko wax man sama tante ñaan sa mom lañ mi féetal mu dem ba yor ben âge bi nga ko dugg ci yi kon nak bu ñëwé ni mu ñëwé xam na ne yow am nga ci ben responsabilité kon ñu ngi lay sant ci lolu dila ci gërëm yalla na ci ak mbokk fay liggéey bi ngay liggéeyal sëñ Tuubaa na ko sëñ Tuubaa defal dajale la ko fulal la ko mu doon kiiraay lu ànd ak mucc ci mucc nga sëriñ bi amoon ba mucc noona mi ñu ngi lay bàyyi xel bu baax ndax wet gi nga nekkee ca lañ bokk nekk ñu ngi lay bàyyi xel bu baax di gis taxawaay bi ci réew mi yàlla na ko suñu borom fay def ak yiw rek am solo réew mi bii dëkk lépp lu fi def waay def te lu baax amul solo nit ñi kenn moomu leen waaye ku leen defal lu baax ñu wax ko yàlla na yokk yàlla yokk teraanga yi yokk kàttan bi bàyyi laa njaboot ji gi amagunu tawféexu ñëw kër ga siyaare leen danañ fa ñëw siyaar si leen incha allah bu neexee yàlla waaye sant nañ leen bu baax mami bég nañ lool waa bég nañ lool. asalaamaaleykum mbokk Allo Dakar TV. Mm-hmm. seen émission découverte tey moo ñëw fii ci Diamaguène. Euh, seet ci benn famille bu ñuy wax famille Tàndaxe euh, doon ci waxtaan ak euh, góor gi El Hadj góor gi El Hadj ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. waaw ñu bëggoon a xam rek tey famille mhm. Tàndaxe tey membre yi famille bi naka la ñu nekkee. waaw membre famille nu nekkee du ñu nekk benn nekk benn bopp di demelante mag ak mag ndaw topp ci gannaaw waaw macha allah mhm. bu nekk benn la mhm. tey bu ñu doon yéeg tuuti tey ci cosaan bi. cosaanu famille bi maam yi ñan la. maam yi ñoom Mbarika Ndiaye ñoom Mintu Fall. Mhm. waaw ñoom Bobo Fall ñoom Khady Ndiaye Naar Fall. Mhm. ñooy maam yi. Mhm. pour na citer que ça ñooñu. parce que mënuma tudd ñëpp daal. parce que macha allah xam nañ sakkan tuuti daal. ba xam ni doo mën a tudd ñëpp. da ngay tudd quelque rek. waaw mais ñoom ñëpp Dakar la ne wala dañoo tas ci région yi. Ah, daanaka ñoo ñëpp génn nañ àdduna. waaw gën a nañ àdduna yal na leen yàlla xare àjjana te yéexee ñu ay mag lan woon nag li ma lay wax ni yëpp ëpp nañ ay cent ans waaw parce que man mii di la wax ni rek j'ai 63 ans macha allah te man maay caat waaw waaw tey El mali Malick di sa jarbaat waaw eh, ngeen am jaar-jaar waaw tey ku leen xool xam ne jarbaat mhm. ak nijaay la yoo xam ne dañoo xaritoo jegewoo trop dëgg tey ban témoignage ngay def ci moom ah as mën naa wax si moom ba suba ba mu ko xamee ba léegi mu xàmme mësuma am lu naqari si moom te gis naa ni nitu ñëpp la macha allah man damay dem ba yaakaar ni sax su may wax nit ñi yaakaar ni as dafa faible tellement que ku ko wax soxla mu régler ko su ko mënulee regle sax day am problème waaw moom daal nu mu la ko mën a waxee nitu ñëpp la waaw ba nga xam ne ñii duñ koy sollicité même man mii di la wax nii ba keroog maa ngi koy wax ma ne ko ay nit sax du may gis di ma sollicité di ma waxal ma aas mu jàppale ma si lii wala mu defal ma si lii waaw man moom mënuma ko fay waaw parce que sama kanam la màggee waaw te moom mii si boppam daf ma xam ba jeexal ma loo ko laaj si man mën na la ko wax waaw dafa fekk si ma démb lu may nekk nijaayam yëpp mais ay morom lan soo déggee ma ne ay morom lan sama enfant yëpp xam na ko. da ngeen bokk jamono. duñu bokk jamono. waaw kaar kaar yàlla def si moom xel macha allah bu nga xamee ni man du ma la ko nëbb sax du ma rëy pour waxoo man moo ma gën a intelligent macha allah moo ma gën a tey. waaw moo tax du ma ko xoolee comme jarbaat su ma koy xool day mel ni kilifa si man. lan moo la gën a marqué ci moom ci jeunesse am jaar jaaram ba muy nekk ndaw ba tey nga koy gis. lu la marqué tey loo xam ne boo ko ne jàkk fàttaliku ko. waaw ba mu gënee nekk xale yëngatu woon na waaw yëngatu woon na comme booy Médina rek booy Médina la woon parce que waa Médina la ku xamul nag da yaakaar ni jaarul Médina mais fa la juddoo fa la màggee waaw comme gone Médina rek waaw exemple waaw njaxlaf waaw yëngatu bëri affaire mais nag yàlla dafa def ba mu demee nag ba yàlla jox ko yenn âge yi dafa nekk kilifa mais man dama doon toog daal sama jaraaf dafa nekk kilifa ba pare nekk xale. benn paa ne ma non. kilifa du si mag du si xale. xale mën na nekk kilifa. lu nuy wax comme euh, mag xale état d'esprit la. waaw macha allah yàlla daf ko teel a def kilifa. waaw. yaayam tamit di sa mag. ngeen am ay rapport relation yu rafet. Mhm. yoo xam ne seede nga ko fi sànq. waaw dem nga ba naan sax moom yéex ngaa xam ne moom du sa yaay. dëgg la tey ban ban ban. ban ngay def tam jëmale ko ci yaayam. moom lu ma mën a def si moom rek. Mm-hmm. mooy daanaka ba ma xàmmee. laa gën a mën a def témoignage si moom parce que boobu maa ngi doon ràññee. Mm-hmm. gis naa ni sama yére si néegam laa daan fanaan mm-hmm. lépp lu war si man moom moo ko doon def ba ma yaakaaroon ni moom mooy sama yaay. ba ma demee ba nekk mag na xàmmee laa doog a xam ni sama mag la waaw. man lu ma koy ñaanal rek fan bu gudd ak wér parce que yàlla joxaguma lu nga xamee ni mën naa ko si yóbbu mag wala taxawu si sama jarbaat yi que yàlla nag mooy séddale mbiram waaw mais am naa yéene yóbbu ko mag am naa yéene tabaxal ko kër gu baax dugal ko si waaw am na yàlla mottali yéene waaw baax na jërëjëf El Hadj kontaan naa jërëjëf kontaan naa waaw mbokku Allo Dakar TV ba tey ñi ngi fii ci jàmm gën ci seen émission découverte àndoon ak tey El Hadj Malick Gueye El Hadj tey yaa ngi say biir mbokk de. <laughs> ban maa nga am tey vraiment yendoog say mbokk. añandoog ñoom saafunteeg ñoom waxtaan ak ñoom tey lan nga yëg. tey mbégte bu rëy laa yëg. Euh, fii si jàmm gën. ndax tey ñëw naa gis sama mbokk yoo xam ne gëj naa leen gis lool yàgg na rawatina sama nijaay bii di ñu ngi ko doon wax. Zidou am naa tur boobu surnom la. am na tamit benn footballeur allemand bañ ko daan wooyee ba léegi fàttewuma tur bi. Ah, Briegel je pense. wala Hans Peter Briegel la. Briegel latéral xam nga. ñun nag dañ daan ñëw lu bari wemble par six heures di ko seetaan si. ba léegi damay xalaat façon football ak talent football bi mu doon def nekk défenseur boo xam ne mosul def agression. il était très technique en tant que défenseur. Parce qu'avant, défenseur, il était brutal. Di... Mais quand Beckenbauer l'a tuddé Donc, avant na daal benn turu allemand ba ñu ko doon surnommé man nag dama euh, fier si loolu di wax kii sama nijaay la an bu ñu àndee di seetaan football ma leen di wax kële sama nijaay la tellement que il jouait très bien le football mu nekk koo xam ne amul problème moom ak Abdou Guèye sama grand frère ki nga ma topp si moom ñoom ñoo nekk benn génération ñoom ñoo footballandoo ak ñoom Boy Bandi ay Roger Mendy Omar Guèye Sène ñoom ñëpp sunu ay mag lañu mais Abdou Guèye bi na football kusum ngay wax waaw Abdou Guèye waaw doom rakk Yoro Guèye bi nekkoon xalam dë Yoro suma mag la Yoro mooy suñu taaw Abdou topp si man maa topp si Abdou ci Abdou donc euh, mhm. ñooñu su may famille lañ moom la doomam bi di football léegi Saint-Étienne ak beneen doomam bi nekk Saint-Étienne Arpan Lille voilà donc ñun suñu famille mhm. ñii ay sportif lañu ñii ay cinéaste lañu Pam Ndiaye Makhtar moom moo joué Bax ak Brodouché daan na ko yàlla yërëm xaaru ko àjjana mhm. Alou Ndiaye ñoom yoro Abdou Gueye Bokar voilà ñii nag mooy suma foofu suma kër papa lañu suma kër yaay lañu mais daal moom suma nijaay la bu baax bu baax lool moo ma yar moo moom ak mama ñoom ñëpp duma leen fàtte dama doon dem ba Louga aussi ci famille bi famille bi dafa yaatu nag voilà man daal maa leen di sant di leen gërëm lii nag tuuru famille la boo xam ne ñoom ñoo ko créé. Mm-hmm. di dem ba gànnaar di dem ba Louga dem ay. Mm-hmm. famille yëpp ñëw fi. Mm-hmm. ma ànd ak sama yaay ñëw fi nag. bàyyi jërëjëf El Hadj Malick Guèye bàyyi la tuuti dem seeti doxantu seeti maire bi. Ah, mbokk aloo Dakar TV ba tey ñi ngi fii ci jàmm gën ci seen émission découverte. c'est euh, doon waxtaan ak tey euh, Adja bu Diop di yaay ci El Hadj Malick Gueye ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen mm-hmm. tey euh, famille Tàndaxee ñoo fi daje tey mbokk yi daje mm-hmm. waxtaan añandoo saafunte mm-hmm. ñu bëggoon laa laaj rek tey. ban seede ngay def ci sa doom El Hadj Malick Gueye. ah El Hadj de bu ma ci laajee dinaa ci sawar. sama doom la sama xarit la. moy sama taw kon bu ngeen na ci laaj rek dina ci sawat Alaaji malik mi ngi ci juddoo Medina ni 15 angle 6 di doom Maxtaar ge ak seen bu Diop maam di Yoro ge bu de sama kër côté yaay mom fofu dina ci dem mais comme da nga ma laajin mo wax la ne la ci lebu gu la bok ndax Yoro Gueye tugul Alpulaar la mais ro aji Roqee Njaay ci lebu gu la bok moo tax ñu koy wax nan ko Asset ak Amaanatu Penda ak Amadine Penda mhm. waaw añi Roqaye Njaay mhm. moom kee ko jur Amadou Njaay Amadou Njaay mooy baayam mhm. moom aji Roqaye Njaay sama doom jee toog moom lañ ko tudde rakk la ci Alaaji Malick kon nag soo ma laajee rek ci Malick dinaa ci sawar nekk na daal doom joo xam ne gërëm nga ko waaw trop sax du ndànk Alaaji fii gën di gën a metti di mhm. yóbbu na ma màkk mhm. def naa fi juróom-ñaari umra mhm. aj umra bi ma njëkk a def muy uddi guddi laylatul xadar umra ci biir koor bi moom laa fi njëkk a dem ma toog fa ba aj bi ma ajee ma toogaat boobu Sidi Lamine Niass magam moo fa nekkoon ba mu fa nekkee chaque ajjuma mu ñëw jël sama ci oto bi yóbbu ma ma delluwaat dem tawaaf ma def juróom-ñaari umra juróom weer def naa ko hmm. def juróom-ñaari umra ak benn at te benn dërëmu doomu aadama bi may dem topp ma hmm. moo ma dundal ba ni ma dellu see hmm. mu daggalaat ma biyee ba ni ma ñëwee kon nag maa ngi koy sant fi sant yam di ko ñaanal ndegam moom laa jëkk a gis yal na ko yàlla tëral tëral yi rakkam tëral mboolum jullit waa doom ji bëgg yaayam la doom ji toppatoo juróom la doom ji toppatoo ay rakkam la bàyyiwul kenn Malick bàyyiwul kenn dafa fekk nag nag man maa ko jur sama xarit la ba muy xale bu ndaw nii la toll day denc juróomi dërëm ba ma ñëw mu yëkkati ko jox ma ko kon loolu yàgg na kon dama koy ñaanal di ñaanal mboolum jullit amiin yaa rabbi yéen ñëpp yal na leen yàlla fi yéen nekk nit jàmm nitu teranga yàlla suñu borom bi yàlla na leen jàppale ay rakkam yàlla na leen yàlla jàppale ndax ñoom itam lépp lu ñu mën ñu ngi koy def te ñoo bokk ndey ak baay alaaj malik seetaanul rakkam alaaj malik seetaanul dëkkaale seetaanul ay mbokkam seetaanul kenn képp koo xam ne rek sax daj naa yow ci mbedd li nga lay wutal teraanga di la ko jox waaw léegi nag ngeen may ma tuuti rek ma sànni way ci ci tëndaxa yi waaw ci kër ëttu kër maam ma sànni leen way yeah, mana yamana mana yamana walatna yamana walatna yamana eh أدرى ما أنا أجدادكم ما أنا أجدادكم يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا bè dê dê dê dê dê ê dê dê dê mà nó bờ lút cung ê ao dê dê ao dê mà nó bờ lút cung ê khuna ballen dê dê يا بريزدان يا بريزدان يا بريزدان يا بريزدان يا يا بريزدان يا بريزدان يا بريزدان بردا ما أجدادكم يا بردا ما أجدادكم يا إيه، فردة وليانا يا من أجدادكم إيه يا يا يا إيه فردة أجدادكم إيه وليانا من أجدادكم إيه نفرح دايما أجدادكم الله جمال الجاي ما نجدتكم أنا يا ولي إيه، وليانا تندخ كامل لا شمانا يا أصغي وليانا يا وليانا يا عسقي تندغ كامل شمبانا يا عسقي يا وليانا يا عسقي يا عسقي تندغ كامل شمبانا يا عسقي تندغ كامل شمبانا Jaya, jaya, jaya, jaya, jaya. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jërëjëf Serigne Touba. Jërëjëfati Serigne Touba. Alaaji Gueye. Jërëjëfati Balla ak Maram ay saak Sadio maam Jaaru bu sama ca Poroxaan. Jërëjëf darmanko yi. Jërëjëf barke darmanko gi. Alaaji yoroy sa maam. waaye maxtaare sa baay aasay sa baay ñu dippee Sofi geye sa badjan su adu geye sa badjan as jappale seyna bu aisha Fall yaa jàppale satu la Joor ya jàppale satu Samba ñebe seyna bu job job asan Maram pend ma ca Silmaxa yow yaay keur Mbodi Ka nday yaay keur Biram sin Njaay yaay munu munu nin nday yaay ko seyna bu job tara nga ji nga def nak sa dom la ndax dañ ne doolee jeun ndox ndax bu aas bañé nga nangu day metti rek waye pa force as jappati te yow fii bu fekkoon ne tey nga ko mës a def fii rek ñu mës a wax kër Xadi Njaay kede ba moo dee samp dangaa ñëw andi say tara nga ànd ak sëy mii nga dellootu ñuy defaat nga ànd ak sëy na bu mu andi ay taraanga te sëy na bu doo sonn doo taay te defalaguñ la dara sëy na ba ngay fayal àllaa ji jàng ak kinne booba kenn waxul jàng booba kenn xamuñu yàlla xam na ne ak yéen ci booba doomu ministre ak doomu député yi ñoo sey ay dàll mu ak mu bu Jóob yow lii nga def fii Jóob Asan Maram Penda ma ci yal na la yàlla may gudd fan yàlla bàyyi la ak mami ak dékke sama doom bàyyi la ak sama momar njëmbët mi ñu tuddee njëmbët muy suñu doom ñuy bàjjanam di yaayam Seynabou Diop ñu sa tànt ngay Aïcha taawu Aïcha nga yàgg teral nag sa yaay yàgg suturaal sa yaay Aïcha yàgg sagal ñuy dem Louga ngay suturaal sa yaay di ko sagal Diop Assane Maram Penda Seynabou Diop yal na la yàlla la fal cat loo man den yal na ko man déwén yal na yàlla yàggal sa taxawaay lii nga def nag ci kër Mané Sougou gii yal na nga toog ba njabootu Mané Sougou ko fay sëy na bu ba noon ngaa beru mbaa nga def leneen waaye danga ñëw ba ci digg ndakaaru xam ne ñi nga bokkal nga topp ci say mbokk bàyyi ay jàmbur waaye tàqale woo ay say mbokk nag tàqaluñu la ak ay jàmbur ndax yaa ngi def ci jàmbur di def ci say mbokk kon boo taxawee ci ay jàmbur dinañ la gërëm boo taxawee ci say mbokk dinañ la gërëm sëy na bu sagal nga kër Xadi yal na la suñu borom bi sagal sagal nga kër Mbodi Kan Njaay yal na la yàlla sagal sagal nag kër maane sugu gii nag ci digg jàmm gën gii maane faal fi taraanga ji jóob asan maram na yàlla la fal la cat duma tuddu Ndiaye duma tuddu Mbarka duma tuddu tudd kenn sam bu ma nee sugu rek yóbbaale na ñep yóbbaale na ñep buma ne mané sugu sugu na ñep yalla yalla na yàlla job jere Diop jere jërëjëf. man la Balla Ndiaye je ne suis pas l'aîné de la famille nak mais danaka ma top ci kifi mak manam mbir biñ ko commencé ak léegi lepp maanaam sama loxo famille bi nga xamné moy famille mané sugu te bok ci groupe famille bi man mi maay jiitu xalé yi fi waaw man la. waaw lu waral euh, tay famille bi dajé dajé ndaje bi lu ko waral. bon waral lu waral ndaje bi dañu njëkkoon def benn mbir euh, daje def assemblée générale pour boole descendant yi Mané Sougou descendant Aïssata Fall ak descendant Assatou ci léegi ci loo kaw loolu ci lañuy ñu instauré ne dañuy def ay tour premier tour bi nag tey ñu ayee ko ñun famille Mané Sougou di sant yàlla nag ci loolu parce que pour la pour une première mu réussir dañ ci sant yàlla daal. tey euh, famille bi ni ñu dajee nii à part est-ce que am na ay projets yoo xam ne tey bëgg nañ koo def. waaw am nañ ay projets yu ambitieux en quelque sorte parce que dañu xam ne dañu xam ne famille bu ñu ko waxee rek dañuy wax ci biir éducation tey parmi la famille ci biir famille bi ñu am ay enseignants yu jël retraite am ay enseignants ak ay enseignantes yu fi nekk même des professeurs ñu ne pour pas ñun ñu jël jéem a am objectif bu benn école boo xam ne internat lay doon ñuy judd ci famille bi. ñun ñoo fay encadré di fa encadré encore yeneen i doomu jàmbur yoo xam ne bokk ñu famille suñu ambition daal mooy ñu ubbi benn internat bu mag loolu daal mooy ambition famille pour le moment nag euh, amaan nañu ambition tamit beneen ambition mooy ambition beneen bi ambition bi ñu mooy lan mooy fexe ba tamit les femmes yi nga xam ne amuñ ci lépp lu ñu jàpp ñu fexe ba autofinancé leen xam la formé leen ba pare financé leen pour ñu mën am ci jàpp lu ñu jàpp daal loolu tamit suñu ambition la bokk. merci beaucoup. merci jërëjëf. bon ah bon mënu ma mënu ma dem nag. te waxuma ci ki nga xam ne sama frère. mon ami As Gueye. bon damay wax lu tax li ñu rapproché man ak moom. waajuram bu jigéen la. ndax waajuram bu jigéen dafa def loo xam ne suñuy waajur ñoo suñuy waajur yu jigéen ñoo maase ñoo doon ànd mais moom waajuram bu jigéen dafa ñëw kolewu ci ñun uuf ñu. ba pare lépp lu ñuy def mu jiituñu ci xoolal une dame maire bu toll nii ñuy def tournée Mauritanie ci chaleur bu mett boobu ak tàngaay bu métti boobu moom mu jël engagement ànd ak ay xale yoo xam ne xale yu ndaw ñoo xam ne maa leen mag ànd ak ñoom tournée presque un mois mu nekk ak ñoom Mauritanie def tournée maire bii moo tax ñun mënuñu ko fay su ma a continuer di sama xol day tooy parce que maire bi lu ma wax ci moom rek dama ko xeeb

yàqu ci dara man bi ma xamee léegi daf ma def comme frère xam la ñu seq loo xam ne mënu ma daal mënoo comprendre daal as moom mënu ñaan yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam bàyyi fi mami gay mi doomam bàyyi fi njabootu maire bi yëpp maire bi ñun ëtt maam amuñu fayam lu ñuy lu ñuy ñaanal suñuy waajur yi ñu jur ñun ñu ngi koy ñaanal lu ko ëpp moom ndax jege nañ jege boo xam ne suñuy waajur su mën nañu jege àll teel a jege wuñu noonu sant yàlla leen gërëm dama doon témoigner rek ci as gi jëm sa kanam mu nekk mag ju baax man la ma mi rek ko aas gi jëm sa kanam aas gi nekk suñu pàpp nekk suñu mag nekk suñu yaay aas boot nañu rogante nañu teg nañu suñu place bëgg nañu faale nañu yoor nañu fu suñu bët xonkee aas bi ma nga fa bëggul dara lu ñu naqari 83 dafa yàgg suñu papa génn àdduna boobu ba léegi ñun ak moom teggiwul benn yoon loxoom ci moom ci ñun aas gi lu mu mën ren yàlla na ko mën déwén fi mu jublu yàlla na fi yàlla jublu li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal li ne aas ngay jëm sa kanam ca kaw ca kanam rek ngay jëm bul tiit bul jaaxle bul ragal dara aas bul gestu bul gestu sa ginnaaw te xam ne yow ca kanam rek nga jëm yow képp ko am naqar Ass Gueye taxaw na la Ass Gueye mooy docteur ñëpp Ass Gueye bu noonu mën na joxe ru Ass dina dekkil ay nit parce que ku nekk hôpital Ass Gueye fekk la fa jëndale ordonnance faj la kooku kenn mënu koo fay nga jaaxle nekk sa biiru néeg toog doo xalaat kenn ku lu Ass mu fajal la say soxla man maa sori ci moom ndax bu ma waxee rek damay jooy parce que li ma war a wax ci moom kii mën naa bind sax si moom livre dafa nekk nit ku baax damay dugg ci maamam rek tagal ko maamam Yoro Gueye jur Maxtaar Gueye asat ak amaanatu penda ma sa calaaga booba pend soiru pend mu jur Yoro Gueye jur Maxtaar Gueye Maxtaar jur ko Yoro Gueye moo jur roq moo jur Soadu Gueye moo jur moo jur Alaaji Maalik mi ngi may dem ci maam bu jigéen ngañ ma fal ma fal ma goron be doomu yaa ana fal ma ca barim gay as ge maama moo yetta guy def gaal jël salaan defu too tubaab bi ne ko quest a mu ne ko làkk euh, <laughs> a mu ne ko lànk naa du ma làkk français ñu bind Sénégal as ge Sénégal gi Sénégal gi ñu ne ni as grand boobu la fi du fi survêtement du fi caleçon grand boobu la fi ci réew mi la bokk as nag man naa yem fii rek ndax daal mënatuma naa yem والشيء ما خلاني سامي دوا الحاج ñoom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee Makka di gàddaay dem Medina ñoom ñoo ko dalaloon ñoom i dawal xaaj lañ leen di wax ñu ngi leen di dégg nga yonent bi bu mu ñëwee ne allah yansurkum yal na leen yàlla tere ni ngeen ma tere leen ñun ci xeet boobu la ñu bokk dégg nga ñoom nañuy wax Darmanka mais dawal xaaj moom la tudd ay doom soxla nañu bu koo xam ne kile eh, dañ lay bëgg a jàpp njaam boo xasee dugg ci kër googu rek yow raw nga ñu ne ah, boobu kon fudd do ay sëriñ lañu ñetti xeet lañu nag dawal xaaj ñetti xeet lañu am na hël Sidi Mahmoud hël Sidi Mahmoud ñoo dëkk penku am na am na am na wulaadul Maxtaar am na ashtaxaw ba ñooñ ñooy dawal xaaj ñooñ ñooy dawal xaaj ñoom ñi nga ñooy xeet bi nga xam ne bile ay sëriñ lañu ceddo lañu dañ naan dañ daan dem ci xare bi ñu ne tànk bi mu ngi ci dëgal gi dëgalu xam nga dëgalu fas dëgal mooy boo waree fas fi ngay nga teg say tànk nii loolu mooy dëgal waaw mooy dëgal waaye li ñuy nekk yëpp ci kaw dërëb bi de xare ñu ngi yore kaamil kaamil alxuraan sëriñ lañu ay ceddo lañu waaw ñooñu ñoom ay doomi soxna lañu ñun nag ñun ñii ci lañu bokk ci lañu bokk man maa moom maa dëkk fii 1960 laa fi ñëw 60 lañ fi toq su jóge SLM ñëw fii dégg nga ba booba ñoo ngi fii te boobu dëkk bi mu ngi nekk 454 euh, maisons waaye alhamdulilah rabbil aalamiin presque ñëpp dem nañ ñi fi des daal ñu fi des daal ay ñett ak ñeent comme man meeg yooyu dégg nga dégg nga man ci notable yi laa booba ñu ngi soog a suñu am inde suñu am indépendance daanaka ñi ñëpp ñi ñi nga gis ñu ñëpp famille bi yëpp maa ci mag ñii samay jarbaat lañu ñii samay sët lañu mais nag ñu ngi sant yàlla ak yonent bi bi nga xam ne yàlla may na leen xelu booloo nekk benn dégg nga ñëw di dajaloo kër kenn di fa defanante ceraanga di fa wàcc ay kaamir pour seeni maam kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk seen gannaaw des fi mun fi jógee suñu xel dal na ndax am na ñoo xam ne ñi li xale yoo xam ni taluñu lool la ñu am ñoo ngi koy def feneen di def nga dégg nga waaye ñoom comme yàlla yàlla xiir na leen ci diine ji ñi ngi ñaan yàlla yàlla na leen ci yàlla saxal ak saxal ci ñoo ñëpp ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm bu baax ma day maay seen kilifa cër bii ñu ma joxal tey ñu defee affaire bi Eh, vraiment kontaan nañ ci lool kontaan nañ ci lool xale yi la yoo xam ne yii eh, ñu ngi jublu àddina li ñu bëgg seen àddina ak seen àllaaxira yàlla neneen ko yàlla defal boo gisee sax ma wax lii rek comme da ngeen doon wax rek moo tax ma di leeral rek waaye di leen leeral man Saloum Ndiaye laa tudd Saloum Ndiaye laa tudd maa ngi dëkk fii parcelle bi parcelle 124 la maa yor jumaa ji dégg nga de taabal bu mag laa nuyu sant yàlla di julli ci yonent bi ah di leen sant di leen gërëm wax dëgg yàlla man kontaan naa lool lool lool lool kontaan naa képp ku fi ñëw itam ba ci rajo beeg ba ci ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na gën a ngeen am gën a production ci dara ñoom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ñoom seeni Jóob seeni Jóob aoudu billahi min ashar shaytan irajim bismillahi rahmani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 لك صدرك وانا عن كبرك الذي أنقذك ورفعنا عليك ذكرك ورفعنا عليك ذكرك ورفعنا عليك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت انصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله نصر الله نصر الله نصر الله نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بس بحمد ربك واستغفره إنك توابا بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة توكلنا على الله لا حول يا رب يسر ولا تعسر يا رب يسر ولا تعسر يا رب يسر ولا تعسر نصر من الله فتح قريبا وبشر المؤمنين نصر من الله فتح قريبا وبشر المؤمنين نصر من الله فتح قريبا المؤمنين اللهم يا كاشف الاسراف أن اللبن والبلاء بعلمة النبي المصطفى محمدا اللهم يا كاشف الاسراف أن اللبن والبلاء بعلمة النبي المصطفى محمدا اللهم يا كاشف البلاء اصرف عنا النبل والبلاء برحمتك النبي المصطفى لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا سبحانك إني كنت لعن الله عليك يا شيطان لعن الله يا شيطان لعن الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقاتل المسلم الناس بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره مقداره إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلم صلى الله تعالى وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان رب وسلم والسلام والسلام والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يلا يلا بور يلا يلا يلا تكيون جام بوك على دكار تي في تي سين ايميشن ديكوفرت لي لا لين اندي لون تي ني نيوان في تي جام گن سيت سي فامي تاندخه وقتان ak mbok yi mbok elage mali geuy euh di un opérateur économique donc euh, voilà gis ngeen mbokk yi dañ ne nit bu baaxé ndax mbokk yee ko wax tay mbokk yépp euh, sédé nañu wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jox dëgg jaajee ba beneen